waaw yow caga bi de yow waaw yow caga bi de man du ma wax ak yow du ma la tontu Malick Gakou xam na kanay Gaston Gaston xam na kanay Malick Gakou yéen nag yéen ay sa morom yëpp a ngi baa ñu nekk ci leneen mais yow comme caga nga rek prostitué